un mot peut être au-dessus d'un autre un mot peut être plus haut qu'un autre un mot peut être plus choisi qu'un autre dafa am lu ma doon wax waaye mayoo ma ma ma yegg ci vas-y euh, dama wax ne am na lu ma lu ma metti ak loo xam ni lu ma ci metti ci wax coow li am na lu ma ci metti am na lu ma ci dérangé wul. lan moo la ci metti mooy interprétation boo xam ne samay propos prêté nañ ko parce que man Amadou Amadou xam na ma Amadou Amadou xam naa maay kan président de la république tamit xam na sama loyauté ak sama engagement ak sama xarit ba fan la mën a yegg ma sacrifier man sama bopp pour sama nit pour sama xarit ci lu ne ci lu ne damay dem ci président plaider pour nit ba nit ne ma yow doo toppatoo sa bopp may mun a yaa ngi fàttaliku maag yow nu nu miinantee est-ce que yaa ngi koy fàttaliku danga ñëw wax ma waxi benn opposant nga ne ma diw de am na ay problème dañ ko war a yóbbu. bul ma dugal. <laughs> bul ma dugal <laughs> ça c'est humain. bu fekkee gars yi bu tax gars yi suba. ñu xëyal ma non non non non non non mais comme da nga bëgg a da nga da nga wax dañuy dañuy waxtaan. non non c'est-à-dire que dama la bëgg a wax rek ne la euh, loolu que ñu ne ma wéy am na ñu wax ne sax Pastef la ñu ma dégg ñu koy wax. ñu ne Pastef nga. waaw am na ñu ma dégg ñu wax waaw Pastef la non euh, Amadou. pourtant ci émission boobu dama wax ne dafa am benn mbàkke mbàkke sëriñ bu mag a mag bu ma ne waa Souleymane yow ñetti at ci ginnaaw parce que dama ni ko man de bëgg naa bu fekkee président présenté wul du nekk sunu candidat mu ne ma Souleymane Amadou bëgg nga ko de ma ne ko déet bëgguma dama koo ragal te dama ragal tooñ dama ragal dama koo ragal a tooñ mu laaj ma lu tax ma ne ko Amadou mosuma koo dégg mu wax lu ñaaw Amadou mosuma koo gis muy xuloo mosuma ko gis muy fay wante ma ne ko mais surtout mosuma ko gis situation boo xam ne il a perdu sa sérénité et pourtant bi mu nekkee ministre de finance euh, toll nañu diggante yoo xam ne diggante yu tar la nit ñi di ko xeex gis nga ni ñu may accuser nii accuser nañ ko Amadou dañ koy diaboliser diaboliser ko waxloo ko lu mu waxul dëkkal ko fu mu dëkkul ba dem bay wax ne moom moo créé Pastef moom moo créer sunk côté boobu xaw na maa metti et ñu way xaalis moo tax man Souleymane président xam na ma bu ay ñëwee wax dafa leen di bàyyi ñu wax ba mu déglu mu ne ah je le connais am na lii de xam naa ko ci moom. sur cette sur ce sur cet opposant là. yëgalil histoire bi pour ne pas créer de la confusion. non non non non non non que ñu xam ne c'était purement une démarche humaine. mais absolument voilà. mais absolument non leneen taxul ma wax ko dafa feebar. non non dama lay louer sa action d'ailleurs ci loolu je ne l'ai pas dit pour ça je l'ai dit pour te dire que tey ñii ne fii bari na ci ñoo xam ne dama dem jaamu seen soxla. fàtte sama soxla. nit ku feebar la ma soumettre le cas bi nga porté ko à l' attention du président de la République pour ñu mun koo évacuer. bëgguma sax ñu egg. voilà non non xam nga boo ko daggee day mel ni y' a quelque chose derrière alors que c' était purement une démarche humaine. waaw euh, man pour man man bu ma amee xarit mu nekk sama xarit dama koy jaam donc nit ñi mën a xalaat ne man man naa am intention bu bon ci Amadou metti na ma. alors li la ciy méttiwul. léegi nag li ma ci méttiwul mooy gis naa ne débat am na gis naa ne nit yëngatu nañu gis naa ne am na sursaut boo xam ne ñun suñu propre camp dañu jóg parce que peut-être ils ont senti que war nañoo wane ne nous sommes forts war nañoo wane ne nous sommes euh, nous près ñu jóg gën a bouger gën a liggéey indi ci indi parrainage yi dugg ci dëkk bi wax ak sénégalais sunu candidat wax ak sénégalais ñaari bi ma ci neex mooy bi ma waxee képp koo xam ne da nga am tuuti loo dencoon woo nga ma. <laughs> Ah waaw. ci am tuuti woo nga ma. yaa la xiif nag. non ku ci am loo dencoon loo dencaloon Amadou. <laughs> du la naqari ci Amadou. woo nga ma. nga nekk réceptacle. ma nekk réceptacle léegi ñooñu. man maa comme xam naa leen identifié naa leen maa léegi man maay tey ci ngoon la mujjee man maay dellu ci ñoom ñoom te ci ngoon si la mujjee euh, premier ministre ñu may seetaan. di def link yi. di def link yi di expliquer di jubale di dajale.